Je Mangi gërëm euh, monsieur le préfet ak monsieur le président ndax nous euh, fi créé comité départemental Nous xamné ne euh, moy jël que ñëpp Covid 19 bi la fi. génn ci lu gaaw kon euh, jàppale bi ñu wax na jàppale dañ ko wax na xalaat tey dañ ko woon a xalaat suba dañ ko woon a xalaat ginnaaw suba léegi li ñuy xalaat mooy li leen di wax na jàppale du tey kese dañu wax na xalaat pour suba ak ginnaaw suba léegi mois de mars la defoon la defoon benn don de 15 millions léegi bii yoon maa ngi ñëwaat encore ak 15 millions may leen dinañu seet mois prochain lu muy demee maanaam weer bi di ñëw dina gën a métti mën naa mu passé ken xamul dal lool motax légui ñun en tout cas paré neen ñu gi seen ginaaw di leen jappalé ñu am mbégte lool tay di recevoir le directeur général de la RIFSAC ak ñi mu àndal man ak le président du conseil départemental ci tourou comité départemental de gestion de la pandémie de la Covid. ndax euh, njëkkoon na fee ñëw mu ñëwaat fi tey encore pour euh, jàppale ñu si xeex bi nga xam ni. moom la ñuy xeex euh, jàngoro boobu mu doon loo xam ni lu ñëw si waxtu bi ñu ko doon xaar la ndax euh, euh, lu ëpp weer a ngi nii daanaka jotatu jotatuna benn ndimbal fii alors que action yi ñuy mëne ñi soxla ñu jàppale leen toujours dañuy jot ay demande donc euh, lii doon na loo xam ni dinañu permettre ñu gën a mën a soufflewaat tuuti gën a mën a euh, dimbali ñi nga xam ni soxla nañu suñu sunu ndimbal ndax ma fàttali nii si département bi taxawal nañu fii kuréel goo xam ni fay saytu euh, xalé yi nga xamni da do nek ci ay jafe-jafe muy taalib yi ak ñeneen euh, bu nu fàttali ko na ay wañu daara ak yo xam ci taxawal nañ ko pour fexé ba taalibe yooyu mën a bañ ñi nga xam dañoo bëgg ñibi aussi ñu gunge leen ñu ñibi si benen wet bi aussi taxawal nañ fa benn centre bo xamni ñi nga xamni seen euh, xel nekkul ci ñom aussi ñu accueillir leen fofu fexé ba ñom it li war si ñom si dundal si topato aussi ñu def ko Euh, loolu lépp nag dafa nekk loo xam ni euh, budget la te budget bu xaw a takku la donc lii dafay ñëw vraiment jàppale ñu pour ñu gën a mën a euh, taxaw taxawaay bi nga xam ni moom la nit ñi di xaar si ñu. damay remercier d'abord ni ko préfet waxee sunu xarit sunu mag le président directeur général de RIFSAC monsieur Yves Crémier damay wax ne xaarul ñu ñëw si moom moom de façon spontanée.

te xam ngeen ne comité bi ñetti weer a ngi nii ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ci wàllu xale yi si wàllu askan wi si wàllu mesure barrière yi donc tey bi nga xam ne ne moyens yi mooy def défaut parce que comité bi aussi sonn na mu dellu si waat indi euh, la mu waxoon ak ñun parce que ba mu ñuy njëkk a saisir dafa ne dinaa leen jox 30 million quinze millions yi si nii laa la koy joxe si première échéance bi deuxième échéance bi suñ si toll aussi dinaa ñëw indil ko la mu wax def na ko mais nak du luñu ñu bett si moom ndax tay doomu tëngeej mo ñew ndax mom heure buy ñew fi non lay xalaté non lay jëfé donc amuñu lu dul tey sant ko au nom de toutes les populations au nom du comité pour teranga gi xam indi na ko wat yokk ko si xeex bi nga xam ñu ngi koy xeex te xamuñu kañ lay jëf